lettre boobu nag euh, li ci nekk mooy que ni dañu ñoom am yéene ni euh, li ñu dénkoon mutuelle de sante yi te ñi am ay

nga xamanteni nak euh, dañ leen ko waroon di doli amatul lolu daf ñuy gën a président de la république ci bopam mo jëlone décision ni kat ah, pour la protection sociale il faut que nous gën a nit ñi te protection sociale nous mu nee su wax te ñaari bànqaas yi tuddulee tudoko muy le programme national des bourses de sécurité familiale benen bi ci des moy le programme de la couverture maladie universelle